cour Kër ma jabel la ñu ngi leen di woo ci seeni journée porte ouverte yi ñuy amal àllarba ji fukki fan benn ci weeru octobre bi ñu nekk fukki waxtu jàpp fukki waxtoog ñeent ca ngent derrière akapes programme ba nag nii lay tëddee dinañ yiir ñii di visiteurs yi ca cour Kër Baye Diabel buñ ci wéyee dinañu dem ci yenn activités yi ñuy proposé jëm ci entretien ak personnel bi exposition de livres ak it encyclopédie dina amit ab projection de film toftal ñu toftal ci ab échange ci visiteurs yi fukki waxtu bu jotee jàpp fukki waxtu ak juróom projection de film ci dundu Nelson Mandela ak it sur le pardon di doon ay film documentaire yu ñu leen di mën a dégtal ngeen mën koo seetaan ci boobule journée porte ouverte 15 heures bu jotee nag dinañu tàmbali ab waxtaan ki koy animé nag tudd Sissao Tamba di ab facilitateur médiateur ak i doctorant en sociologie. dinañu amalit benn don de livre bu loolu wéyee dinañu amalit beneen conférence jëm ci 50 livres et cahiers d'exercice yoo xam ne di ngeen ci mën a découvrir talent caché yu ñu leen di mën a may.